dalleen ak jàmm bokk internet yi football TV nuyu naa leen bu baax yaax leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo jox leen une très bonne nouvelle après euh, parce que tey ñëpp seetaan nañu match bu ñoom Tottenham Tottenham bi xamante ne dalal lii di euh, Fulham mu gagné nekk Premier mu mujjee gagné ñu gis Pape Matar Sarr titulaire comme d'habitude entraîneur dafa am ci moom confiance mais après dañu koy génne mu génn sur sur blessure ñu bëri commencé tiit ndax dafa am gaañu gaañu xam nga jamono bi dañu nekk si jamono bu xamante novembre dañuy joué deux matchs éliminatoires coupe du monde coupe d'Afrique bi janvier donc boo gisee benn joueur africain blessé rek on à se poser des questions mais alhamdoulilah nous carrément non non entraîneur de préparer pour gagner quoi qu'il arrive parce que a fièvre, quoi on quoi arrive prévoir donc il y a rien de grave match de nous, de dina de et tout donc pour moi c'est une très bonne nouvelle n'a pas ça di monter en puissance et que euh, élan bi de lu ko jour léegi se élan boo amee blessure rek day yàq sa élan moom mu ngi mel ni Guirassy xam mu ngi am gaañu-gaañu on va voir ce que on va avoir le même Guirassy bii nekk le meilleur buteur instant yi en Europe donc Pape Matar Sarr gaañu-gaañu euh, bi mu am du lu donc loolu pour man c'est une très bonne nouvelle pour fans yu yu yu Pape Matar naa bëri na ay fans nag fii ci réew mi kii di Aliou surtout coach am di côté de Tottenham bi xamante ne depuis mu ñëw fii dafa mas a am confiance si euh, Pape Matar Sarr donc c' est une très bonne nouvelle que Pape Matar euh, dara dolu ko parce que match à haute intensité du côté de Angleterre yombul mbokk yi bu ma jógee foofu damay wax si beneen euh, gaynde gaynde bu xamante ne voilà ñëpp gis nañ bi bu mu dugal weekend bii di Lamine Camara Lamine Camara nag Nabil Djellit moo ñu wax moom Nabil Djellit nee seen kara nee na su amul y' a pas à chercher de midi à quatorze heures wax ju bëri jarul xalaat bu bëri. nee na booy bi crack la bii bi mu dugal mais c' est extraordinaire et c' est mën na nekk benn benn benn révélation si Coupe d' Afrique bi donc Nabil Djellit moom xam naa ne moom bu bu ñu kii laay wax bu bul cata suñu équipe bi laa wax bul cata suñu suñu gaynde yi en tout cas booy bu xamante ne yoon bi mu nekk nii nekk euh, nekk booy bu bu bu simple bu am bu bu dal daal bu teey xam nga donc comme comportement Sadio Mané rek. am comportement yoo xam ne léegi sax Sadio Mané benn affaire la parce que benn niveau bi la Sadio Mané bu muy door da doon xeex di reyante di reyante ñëpp gis moom tanaa di reyante ba yàlla def ko li mu def donc moom aussi bu teggul tànkam nii ñoom muy nabil jëlee di nga gis yeneen ay ñeneen yeneen chroniqueur yeneen journaliste di wax ci boy bi dinañ wax ci boy te loolu man du ma bettu quoi donc bu ne c'est un vrai crack dama dama koy rafetlu souvent rek comme ni ma koy waxee sama internet ñoo may envoyé lien yi pour ma si wax te ñooñu moom aussi ma foog ma nekka leen fii donc loolu wax euh, si lu ñu mën a jàpp émission bo leen démé demee def rek di ngeen gis émission bu gën a complet et aussi équipe yeeg yoyu entraîneur Congo bi fa nek donc y a y a des débats yu ñu war a mën et c'est assez intéressant je trouve donc mbokk yi no noo leen gisee euh, Lamine Camara da fekk Nabil jëri c'est un crack et aussi la pour man une très bonne nouvelle concernant ñu Pape Matar le la fekk mu mëna a euh, rejouer incha allah mbokk li mëna a xibaar yi na wax leen ba beneen.